asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi deux mille vingt ñu ñëw ak yéen ci yi moo xam sunu làmb la la tribune wala record wala sax Leewtoo TV fu nekk rek ay xibaare làmb tey xëy na fa bu dee yëglikaay bi nga xam ne nag moo di sunu làmb la daa mel ni gan ga mu amoon démb muy Eumeu seen moom la continuer xëy di waxtaan ak moom Eumeu nag ñëw na ci diggante mag ki nga xam ne nii moo di Modou ak la mu ko def maanaam dóor nga xam ne dóor na ko ko mu daanu Eumeu daal ne na des fois sax day toog di xool combat bi waaye day xam ne nekkuloon bésam et waaye nag daal nee na ko daal muudu def nga ma ko waaye li leer ba leer moom jàppal ne bàyyee guma la bàyyi moom dafa guma la ko bés dina ñëw moom ma dajewaat ak yow moom daal nee na fi mu nekk nii moom parewaat na ngir làmb boole ko ki nga xam ne moo di Modou Lo ngir mu mën koo fay bor ba nga xam ne ni da ko koo lebal Eumeu Sène loolu la xëy tey di wax ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb jàpp na làmb jooju tamit lam ca jëlee ci ay leçon bëri na maanaam ci ay jàngat yoo xam ne ni daal amee na ko ca ci làmb ma ki nga xam ne moo di Modou Lo waaye adversaire itam waxal nañ ko ko mu mel ni kii nag guy gi moom maa nga koy waxal lu baaxam wala boog mu ngay wax ne guy gi daal mbër mu ko safa saf la mbër la moo xam ne itam gayanam la waaye nag jàpp na ne moom ubbil na koy buntam ngir ñu war a mën a bëree mu mel ni ki yëglikaay bi tey Eumeu Sène la continuer waxtaanam ñeneen ñoo xam ne tamit xëy nañ ci yëglikaay bi di fa wax ci combat bi dox ci diggante Ama Baldé ak ki nga xam ne moo di Modou Lo ki nga xam ne nii nag moo di ngañ Diagne la mu xam ne daal nee na combat bi moom am ngeeg ñàkk am gi faaw ñu gis rek la nekk ca contrat ba ba xam combat bi naka lay mujj Omes Diagne moom la mu xam le itam nee na combat bi day lu war a mën a am la loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moom moo di Omes ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey leneen loo xam ne tamit dañ cay dem wala ca combat bu ñu ca nga xam ne nag moom moo di record moom Ama Baldé la séqal ay wax Ama nag day dafa mel ni moom daal jàpp na ne combat bu ñuy wax ak am ak ñàkk am moom daa jàpp ne combat ba est dana am ama daal na mu waxee moom dalul xel yi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di record waaye nag li leer ba leer daal moom ama itam yëglikaay baa ngi ñu xam ne day mu ngay waaj aw yoon nag ngir dem ca ndar seeti ka nga xam ne moo di lig Nikolaay mi nga xam ne caabi da ko faa féete ginnaaw te moom nag moom moo tëgg li nga xam ne moom moo di combat boobu waaye leneen loo xam ne tamit dañ koy gis ci yëglikaay yi moo xam ki nga xam ne nii moom moo di Siteu moom nag ñibbisi na ngir war a nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne moo di Papa Sow la le 26 janvier sunu làmb ñëw na ci record ñëw ci waaye record nag comme ñoo di ba tey mooy Papa Sow moom day yëglikaay bi ne na li leer ba leer ah mu ngay daw de di jikkanteeg montre ba ndax nag face à face ya war naa commencé fi ak ay semaine ci digganteem ak Siteu te Papa Sow fi mu nekk nii ak jógeem fas bu amee ndax ndax nag du gaawantu xool ba ban écrit lay dem wala boog licence ngir nag mu mën a continuer di doxal ay doxalam yëglikaay boobu moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay yi muy ki nga xam ne nii wala boog ñaar ñoo xam ne seen combat daal la daa jàpp ne est-ce que tàncuwul maanaam boog wala mu coincé comme ni ñu koy waxee ci baatu tubaab maanaam combat ba daal li ko teree taxaw ba tey fi mu nekk nii loolu la kaay bi di la tribune xëy tey samp ci ab laaj kenn koo xam ne mi moom pare la def moo wala boog adversaire am da koo jël au sérieux mooy soq soq daal ne na kii di gàmmu géey moom o sérieux laa ko jël caaxaane sax defuma ko ko keneen koo xam ne nii moom mbaa année balance yootu ko muy rëg-rëg yëglikaay bi ñëw na ci moom moom sunu làmb ginnaaw nag su bañee malik Niang waaye dañuy dem fa nga xam ne nag mooy ca Leewtoo TV loo foofa moom la ñu xëy fekk fa mooy mbay guy gi ak maam Balla ñoom ñaar nag ñu nga fa Assane Ndiaye taxawal seen ab combat yëglikaay bi nag wala boog gis nañ leen ca vidéo daal ku ca nekk yaa ngay diggu sa morom lu méttee métti bu ñu yeggee ca combat ba maam Balla ne na ko dey yow del wax rek ndax nag xale nga te xale moom wax lay def waxi gune dong ngay dox di wax li ngay wax waaye bu ñu ca yeggee da nga xam ne lépp dëgg la dinañ xam maag yow kan moo dàq bëri mbay ne ko li leer ba leer daal may xale nga dàq bëri lu ci mën a am mooy su la jàppee moom ca bassin ba nga xam ne moo ne ca ah, côté arène nationale ba fa tëmbal na leer ne na ko doomu téye sama yoon du yow yaa koy baare leneen loo xam ne nag moom tey faw ñu boole ko ci muy mbiri football ba du mën a ñàkk olof a ko wax lu defu waxu lu aay di njàmbat ndax saajo Mané nag moom xanaa ballon door bi tey danañ ko ko jox record ñëw ci moom wan ko ak photo wu fés a fés musolab costume salaana ca ginnaawam ak Mahrez Sadio nag moom loo ci mën a dégg moom ballon d'or bi tey daal daa mel ni ah dana ko téye comme na ko El Hadj Diouf amee woon ca 2001 jàpp 2002 waaye li leer ba leer te jara wax moom Salah day daa mel ni moom waa dëkkam béguñu ci moom ndax nag ñàkk teew gam ne du ko def moo ka nga xam ne moo di Riyad Mahrez waaye salaa ma koy fàttali ne ko 2019 bii nu génne fii ci Ndakaaru wala ci senegal fi lañ la joxe woon sa ballon door te bañ la koy jox Sadio moom amoon na xolub muñ ak ngor gu toll ni ñëw teew muñ ko ñu joxe ko ko ci sa kanam ci ëpp dëkkam mu muñ ko kon salaa tey ngaa delloo naar bi xoromam moo gën waaye nag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 waaw tey day alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax sant yàlla bu baax julli ci nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nuyu ñuy suivre ñëpp waaw tey moom bés la ci bés yi tamit le 10 le 10 ah. janvier. le 7 janvier le 7 du mois maa ngi juum kon le 7 janvier incha allah rabbi noonu la fa demee. c'est Égypte. waaw ca Égypte ah, comme li ma tëjee rek parce que tey rax naa ko ci parce que nag olof ne na mag mu jël yu jooy yaa xam la ngay jooy. parce que Salah bu nekkente ne moom jour la de sportif mook Mahrez ballon d'or africain ñu koy joxe ñu nominé la ñuy ñett ñi ak Sadio Mané ah defe naa ne li xel gën a mën a nangu mooy ñu teew parce que tamit ni da ngay amee jikko sportif yaa ngi dégg bañ a nekk tamit raciste loolu baaxul parce que daaw heure bii fii lañ ko doon defee Sadio Mané dagg biyam ñëw Sénégal mu metti trop ci biir dëkkam biir ay mbokkam fi mu nekk juddoo yaroo fi màgge fi ba dégg fekk fi baax baax fekk ko fi ñu jël ballon door bi jox ko Salah ci kanamam mu apprécier ko tàcc ko àndaat ak moom dem Liverpool continuer footballam. après bu ne ko nag ba déwén. ba déwén yàlla def tey mu jël ko yaa ngi dégg Sadio Mané comme lu may wax rek exemple la. parce que lu tax mooy benn man dama seetlu si moom nit ku ëmbal nit ku dal nit ku teey koo xam ne bëriwul lu muy wax moom tout le temps liggéeyam lay privilégié moo tax tey résultat yi muy am mu koy am. coow bëri na fi lu bëri jaar na fi ci ay ballon d'or ay nàngam sangam mais doo ko dégg mukk mu wax te tey li ko yàlla dénk retourné waat na di ci investir dëkkam di leen dimbali surtout fam fa nga xam ne fa la bàyyee ko defe naa kon nit ku ne war nga koo mën a royukaay la daal parce que tamit ndey ku ma faal comme la ma doon wax rek diw dafa yaru muy dëgg gàllaaj la waaye diw dafa réew muy dëgg yàlla nañ si yàlla musul pour dëggal li nga wax rek euh, Arsène Wenger nekkoon en coach Arsenal te tamit mi ngi li nga wax loolu la wax nee na il est humble su meree doo ko xam te match da si dem ba jeex même su fekkee ni sax des fois di am ay frustration non bien sûr déggoo li ma la wax boo gisee tey fi mu atteindre ci niveau ci wàllum football maanaam jomam ak bëgg li muy def moo ko fa yóbbu yaa ngi dégg jaarul ci école football jaarul fenn Bambali la jógee ñëw jaar mbuur ñëw fii génération foot après quelque temps mu dem Metz xam nga ba Salzbourg ak Southampton ak tey mu nekk fi mu nekk loolu moo lay wan ki moom la waykat ba waxoon rek loo gëm mu gëm loo la waaw waykat bu mag bi itam waxoon na ko fulla mooy jaay daxaar Youssou Ndour wala waaw daxaar sax boo koy jaay boo amul fulla mañam da jeexal Sadio nag xam naa ne am na fulla te fulla bokk na ci di liggéey bañ a wax te itam yéen a ñëpp jàmm yàlla na ko lii jig ndax xam nañ ne tey moom manta jaas lañ yaakaar waaw loolu am na solo nu ñëw nag si sunu laam sunu laam tey dafa xëy nag eh, dalal ki nga xam ni mooy eh, eh, Eumeu Sène moom daal nee na pareegul si titre roi des arènes moom daal nee na su fekkee ni Modou Lo d'accord na mun na bërewaat ak moom mu parce que tamit li mu am ci défaite si Modou jël na si ay ay leçon loolu bëre bëre nee na tamit nee na guy gi moom nee na da koy reetaanloo mais tamit naa mooy nekk na adver potentiel adversaire am ah, Babacar waaw waaw da koy reetaanloo ba pare waayam la ba pare tam potentiel adversaire la c'est normal waaye fi may jëkkee mooy comme li mu may njëw mooy fi li mu wax si diggante mag Modou Lo ku la daan ñaari yoon ba tey te làmb ji jeexagul yaa ngi bëri mu ngi bëri am nga droit kat bàyyi xel ne ka bés dina ñëw ñu dajawaat te itam soxlawaat na couronne ba te couronne ba tey mu ngi ci loxoy Modou yaa ngi dégg bëre nañ ñaar yoon Modou daan na ko ñaari yoon loolu nag mooy sport waaye taxul ma démérité leen li ci des mooy diggante ma guy gi loolu mu wax ah guy gi moom bëri nañu muy reetaan loo xam naa ne Sénégal gii tey ñi fi guy di reetaan loo ak i français am ak ya muy def doy na waar waaye moom it loolu lépp xëy na nit ku ne ak lu la yàlla bindee la waaw waaye tamit comme li mu wax ne bu leen làmb làmb boole na effectivement war nañu mën a bëree tey làmb ji dafa namm loolu guy gi Eumeu Sène dafa neex guy gi Eumeu Sène làmb ju neex a neex la waaw. journal bi tamit mi ngi laaj ne condition yi nga xam ni moom la combat Ama Baldé Modou war a am jox na nag ñoo xam ne ay eh, kàddu nee nañu ki si mel ni ngañ naañ nee nag il faut ñu xam clause contrat bu lié entre Ama balde ak Modou Lo keneen ki nga xam ne mooy Omez nee na combat moom mun na am. waaw ah waaw ñun daal dañuy ñaan moo am rek comme lañ ko doon waxee lañ ko doon waxee rek xamuñu nag lu ne sa contrat ba yaa ngi dégg waaye li ñu mën a am mooy ñaan suñu borom yàlla ke ko tëggoon yàlla génne ko fa mu ne ba mu continuer combat parce que itam euh, li ne ci comme ko suñu nga jaañ waxee ah xamuñu ko omes tamit na ne xëy na war na mën a am loolu daal la ñuy ñaan yàlla na am daal la ñuy wax suñu jógee nag fi nga xam ne mooy sunu laam dañu dem si record record moom tamit bi ñu fa xëy ki nga xam ne mooy Ama Baldé moom daal benn kàddu rek la wax ne nag xam na ni combat ma ak Modou Lo mënut a am tant que Luc Nicolas mi ngi si biir kaso bi dana doy waar moom dana doy waar wax dëgg yàlla kon loolu ama wax it lu jar a bàyyi xel te Modou Lo wax na ko démb kon nag comme la ma waxoon laay waxaat rek yàlla na li génn pour continuer combat bi pour combat bi am ren si kàttanu suñu borom. Euh, journal bi tamit record mi ngi xamal ne ki nga xam ne mooy Papa Sow semaine rek moo des ci jàkkaarloom bu njëkk ak Siteu face à face le 26 euh, janvier fee ci nationale nee nag moom mi ngi waajal bu baax même su fekkee sax nekkul ak waa écurie Fass moom daal mi ngi waajal bu baax ki nga xam ne mooy jàkkaarloom bu njëkk ak Siteu. mu ngi waajal waaye itam mu ngi daw jëm ca montre ba ah, noonu la ko yëgle. compte à rebours la compte à ah, contre à rebours. waaw non non pour man dafa ne la euh, contre la montre. wala du loolu la bind. compte en rebours maanaam mi ngi waajal quoi mi ngi commencé compte bi si. waaw waaw. jëm si le 26 première loolu moom lu si mënta xew mooy papa moom ah yaakaar naa ne digganteem ak Siteu Pa Abdou Fall wala sa am na promoteur yu ko bëggoon yàlla def Pa Abdou Fall yàlla ko moom la ko jox. ñu ko ñaan mu dugg si ak jàmm génn si ak jàmm muy combat boo xam tamit combat bu neex a neex la seen face à nag. première face à face bi mu ngay amee ci arène nationale le 26 janvier ci journée boo xam ne Boubacar Niang moo ko tëg dox ci diggante Fils de Salla ak Caatu muy Ama Events muy bés boo xam ne ñoom la ñu jagleel drapeau ba kon yaakaar naa daal ku yebu waaj pour le 26 janvier ndax xam na ne arène nationale dina neex dina yëngu ndax Papa ku ne xam na ko ci làmb daal làmbe ki nga xam ne mooy sëtta tamit tarkindaa yi moom yaa ma gën a xam ak seen sorom tarkinaal boobu nag si la ñuy des toujours si record ne ñu jibbi si nag ginnaaw bu mu defee ñeenti weer euh, États-Unis ñëw na daal pour waajal premier jàkkaaroon moom ak Papa Sow le 26 fee si arène nationale. waaw Siteu waaw ñu koy nuyu di ko ziar ñëw na waaw parce que tamit xam nga war na jàkkaarloo ak Papa te am na lu metti lu ko dal ci ginnaawam maanaam nit xaar xaritam intime di Fodé suñu borom bi jël ko ci diggante bi kon yooyu yëpp ay motifs la yoo xam ne ne na tax na mu ñëw Sénégal encore une fois ñu koy nuyuwaat di ko ziar di ko jaalaat Fodé moom moom Siteu di ko jaal waa Lamsaar yëpp wala Tarkinda yëpp daal suñu jógee nag fi nga xam ne mooy record nañu dem fi nga xam ne mooy tribune tribune daal dafa xëy samp benn laaj nee na pourquoi combat bi nga xam ni mooy Boy ñaa ak euh, Balla Gaye 2 mu taxaw pourquoi ça coince la moo la moo bloqué combat boobu ba léegi mënul taxaw. lu coince la mooy lu tàncu waaw loo xam ne nii moom da nga faa dugg mu ne la taaj tëj la fa mënatoo dem mënatoo dikk mënoo toogit nag kon daal li leer ba leer li ko tànc na ko tinc kon promoteurs yi nañ ci wax ci Ama ak wala Boy Niang ak Balla comme kaay bi di la tribune moo xëy laajati lool noonu la fa demee waaye pour man dama naan bu tàncoo nañ leen tincer ci xool ku ci ne fañ lay awale <laughs> booy ñang mii nañ ko jox tafaatin day neex comme mu ngay wax waxi guy gi ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye digganteem revanche am mu may Gris Bordeaux revanche parce que daanoon na ko loolu moo mën a nekk yaa ngi dégg waaw waaw ni nga wax nag euh, si sunu lam weekend bi sax Balla Gaye mi ngi fay wax nee na nekk pour nax nit ñi rek combat am xëy na ak Boy Niang li a am solo daal ba am solo moom ñun li ñaan moom yàlla na mbër yëpp bëri pour làmb ji gën a mën a jax démb nag euh, fee si Leewtoo TV Babacar yaa ngi woon foofu si galaaw si si face à face bi nga xam ne Assane Ndiaye moom la organisé woon mm-hmm. waaw muy premier jàkkaarloo combat taxawal dox ci diggante ki nga xam ne nii mooy mbay guy gi école ba da jon maam Balla bu Pikine mbooloo muy làmb joo xam ne itam yaakaar naa ne amateur yi bëggoon nañ ko ñaari mbir yi nag démb daje nañu waaye ku ne dégg na la moom na lam nar ne na ko arbitre soufflé la tere dama lay jàpp ca bassin ba laa sànni dooma téye ma ne ko nag déet yemale ko ci biir la giiw bi rek moo gën a ndax bassin bay na boo ko fa sànnee mu loolu duñ ànd amaana mën na fee voilà déet ah yooyu wóorut na ko na na ko yemale ca biir géew ba rek bu ko sànnee maam Balla nag ne na ko waxee gu ngay wax xale buy toog di di rêve nii di génn ne na ko da ngay wax waxi gune waaye bis ba joteegul te bis bis bu jotee di nga xam ne waxi xale ngay wax muy lu neex a neex xam ne ak Baol production waaw. waaw incha allah ku fa dem da nga gis vidéo bi soobee. Babacar nag si kàddu leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astandine depuis Italie Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Maam Diarra Penda Fallou bébé Moussa ak ki nga xam ni mooy bébé Rokhaya di nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Sey depuis nu France di nuyu Abdou Gueye euh, papa Sita Baye Fallou Diamagan depuis les États-Unis di nuyu ki nga xam ne mooy Djibril Diop depuis euh, Guinée Bissau di nuyu waa Parcelles unité 26 yëpp Babacar. waaw nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di wax nekk daal tey comme ni ñu ko wax rek gis ngeen tey li ma xëy sol ci maillot Sénégal c'est pour soutenir Sadio Mané suñu fierté nationale xam nga di nuyu ki nga xam ne ni nag moom mooy Abdou bu xarañ bi nga xam ne maillot bi moo ko defar foloke ko jox ma ko maa ngi lay nuyu bu baax ba Abdou bu xarañ di nuyu tamit Mor Cissé ah Mor Cissé bu jaamal maa ngi koy nuyu di nuyu waa jaamal Cissé yëpp di ñaanal xalifa bi na fi yàgg te wér di nuyu xalif say xalifa ne si réew yëpp Awa bu Balla Gaye 2 depuis Touba Mbacké moom tamit maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm di ko nuyu di nuyu waa Sakho family di nuyu Asi Diagne ca Nouakchott Mauritanie moom itam di nuyu waa KMB yëpp waa xarañ moo ñu boole ak ki nga xam ne mooy Amina Gningue ñoo ñëpp dañuy suivre à travers Leewtoo TV di nuyu waa Maroc xam nga waa itali waa ñoom ñëpp ma maa ngi nuyu ñëpp ñoom Benzema dem ñoom Serge Dione Abdoulaye Mbaye du ma ko fàtte borom États-Unis d'Amérique ak sama xarit ah Habib Ndoye ak doomu ndeyam Youssou Ndoye Saliou système international maa ngi koy nuyu di ki nga xam ne tamit moom mooy euh, sa non moom toujours moom la. revue moo ko moom Kempes doomu ndoyu yàgg maar maa ngi koy nuyu Omar Tawa tamit doomu ndoyu Saliou Khoule maa ngi koy nuyu. ak Pierre Malick tamit. kan Pierre Malick Ngom. non sama xarit la Malick Ngom arbitre maa ngi koy nuyu bu baax a baax mi di nuyu tamit arbitre Dramé. ñoxor tamit ñoxor Matar Diouf ñoxor tamit dafa xaw di yàlla na ko yàlla yëkkatee ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi di wax ka ne Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm barke Nabil Moustapha sallallahu alayhi waa no loolu moom fépp ci réew mi rek na ko Sénégal yëpp féete de du du musée ba kese déedéet fu mu mën a doon ci Sénégal suba ñu yëg ne ballon d'or bi duggaat na mais tamit di wax mention spéciale wala di remercier El Hadj Ousseynou Diouf ndax bi mu ci tolloo wane na fulla wane na jom wane na fayda ba jël ko ñaari yoon moom itam mu nekk koo xam ne nii mu monument la fii ci Afrique wala ci footballu àddina bi ndax c'est le non c'est le meilleur parmi les meilleurs El Hadj Ousseynou Diouf man ba football sosoo ba tey man Babacar maa ko wax gisuma ko dàq football El Hadj Diouf si kàddu yoon leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah.